salaamaaleykum mbokku internet Iba Kane TV tey nag dama leen andil uh, gan bu rëy waaw kii ñu koy wax naaru Sogas borom caaya bu ñuul bi ah mu gëj ci làmb lool lool lool ñu doon laaj ndax moom dafa bàyyi làmb wala gars yi ñoo ko génnee làmb ji mu wuti leneen loolu daal bëgg nañ ko xam naaru Sogas maa ngi leen nuyu mais gars yi namm nañ la ñoo ma ne dama jëlee ñu naaru Sogas. bëgg xam si lan la nekk. salaamaaleykum wa maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di siyaar bu baax a baax di la bëgg ah. di bu baax bu baax. Mhm. say téléspectateur. Ah. Mhm. ñëpp. dëgg ñi nga xamante ne ñu ngi suivre sa. Mhm. say émission ñëpp maa leen di bëgg bu baax a baax a baax. dëgg la Matam wax ngeen bàyyi ko xel nag bu baax a baax parce que émission yi am solo ñoom ñoo ci nekk. dëgg maa ngi lay siyaar bu baax a baax di la bëggee. waaw mais to laaj bi benn question rek. gars yi ndax dañ laa génnee làmb ji wala nga bàyyi làmb. non dama demoon naa benn instant boo xamante ne bu doon man kese la damay bàyyi sincèrement parler. bàyyi dama dama bàyyi moom vraiment. mais da ngay dem ah, mais lan moo la naqari naaru. sax kaaraan mais lamb li ci naqari ah. dafay bari. dafay bari dafay hmm. bari. xam nga parce que lamb léegi ni muy doxee na quoi. ñan ñoon la la naqari promoteurs yi la amateurs yi la fans club la moo la naqari. non xam nga promoteurs yi bëriwul sax ñu promoteurs yoo xamante ne dëggantaan jaay. xam nañ hmm. lamb. Hmm. xam nañ làmb parce que promoteur yi boo xoolee léegi ñoom du ñoom ñoo dox combat yi dafa am ñu leen di doxal ay combat mm-hmm. xam nga ñi leen di doxal ay combat nag nga xamante ni ñoom ñoo am ay mm-hmm. loolu dafay dem benn instant boo xamante ni dafa mm-hmm. yàq làmb parce que am na ñoo xamante ni du ñu yi indi ay supporter ci làmb mais dañoo ni nii ñu fu ñu duggee ci biir làmb dañ leen di bàyyi xel te dañ dañu ñëw seetaan si làmb ji waaw te ñun ci bokk ñooñ lañ bokk ay mbëru mbëru nga waaw mais mais mbëru amateur nga mais say dernière performance tamit baaxul de. waaw samay dernière performance baaxul. parce que moom mooy li may wax rek ku ñeme mm. ku nekk dañ laa dee. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. man làmb. Mm-hmm. dama ñu ma daan àndal samay copain. waaw ma doon jàppale ci làmb. waaw xam nga. Mm. mais da ngay boo xamante ne da ngeen di jëm da ngeen di gën a dem mag. waaw xam nga ñii dem ba yoree famille. ñu bëri dootoo ko nangoo ci teg seen kaw. maanaam làmb boo amul ñoo xamante ne ay bonne volonté yi lay jàppale. da ngay te loolu amuñu ko woon ñoo doon defal lépp suñu bopp. xam nga. lépp lépp lépp ñoo ko doon defal suñu bopp. dëgg la te benn instant bi dem benn instant bëggatuma sonal suma. suma gars yi sa mhm. mais mais mais côté physiquement tamit dañu doon gis ne doo andi physique bu baax loolu da xoolee sama den sama sama sama loolu boo xoolee sama dernier combat kese la. man. Mhm. man du ma boo xamante ni. mbër mhm. muy jël ay poids yooyu la. waaw non non parce que man damay entraîner régulièrement man physique laa gën a bëgg que. que que que que que naani doom. wala mm. di ci affaire yooyu noonu man loolu laa gën a soxla. Mm. xam nga. waaw boo ma gisee ci làmb boo xoolee samay combat ñoom Lac Rose samay combat ñoom kii lu mu tudd sax caat. Mm. ay tout ça boo ma gisee da ngay da ngay yaakaar ni sax ku entraîné wul la. waaw fekk intérieurement. Mm-hmm. waaw xam naa ni man man man sama wàll xam naa damay liggéey boo xoolee mm-hmm. sama dernier combat. Mm-hmm. li tax mu demee noonu mooy combat bi dama ko préparé préparation bu yàgg. ma toog ci ay mois yoo xamante ni liggéeyuma. waaw xam nga. ma dem ba benn. kii bi ñëw ñu dàqaat làmb ji ma dem ñu dàqaat làmb ji. mu mm. nekk deux fois ma ne nag man mënutuma toog sans autant que ma dem liggéeyi. Mm-hmm. te xam nga. ma toog nag benn instant bi entraîné tax sama dernier combat mel noonu. maa indi forme boobu mais waaw moo indi forme boobu. mais man mm. du ma ci ci làmb. Mm, doo tricher. du tricher ci làmb man su ko amee bëgg nekk ci rek. ma ñu ma combat bi jour temps la. man boo bu ma ñëwee ci làmb ji doo ma jéppi. sànq da nga ne daa am mbër yu naan doom dafa doo doo naan doom daa mbër yu naan doom. ah loolu a ñàkk. lu tax mënut a da nga mën a développer ci deux mois développé doo entraînement normal deux mois nga. si ginaar daal laa koy gis. non amul. Mm. yan développé yan yan ñi nga gis ñëpp nga jékki-jékki gis leen combat bi ñu mel nii. Mm. combat nga gis ñu ñu am combat rek. Mm. ñu wala genre affaire yooyu noonu. mais loolu du naturel. du naturel la du sport. sport am lo ci wax. naani doom lan la mooy dopage la mais comme ay pro jël di ci wala ngay jël ay sirop wala genre affaire yu mel ay sirop. ah sirop dañ xaar peut-être dañ koy naan. dëgg la dëgg la. <laughs> wa mais. ñoo naar di xam si cosaan ba léegi wala. fa fa laay bàyyi moom incha allah. ci kàttan ah mais dernier combat yi gisatuñ la si gars yi. waaw dëggantaan sama parce que toxu bi moo tax. toxu bi moo tax. xam nga gàddaay. dafa xaw hmm. te ñun nag dootuñu ay xale ci làmb. waaw ñu làmb ko woon ak dara. ak dara vraiment demoon ba commencé de ba commencé di liggéey. Hmm. xam nga sama liggéey nag laa gën a favoriser sax. vraiment moom laa gën a fonk léegi làmb bi non moom laa gën a favoriser parce que dafay toll yenn moment yoo xamante ni. boo hmm. toll di ko wax mbokku mbër yëpp nag ku ci am sa liggéey bu yóbboo nga jàpp ko. dëgg sox bi gis ñu la de waaw combat sox gi ñëw ma mais maa ngi moom ñu ngi déggante déggante bu baax a baax léegi léegi rek gisante. mais xam sa cosaan nu meloon meloon bu njëkk melatu ko. peut-être nag mën na am li ci ëpp nag man la quoi doon naa ci futif. yow la waaw parce que dafa am ñoo xamante xam sa cosaan parce que boo xoolee man maa fay mbër mi nga xamante ni. maa hmm. njëkk a bëre presque. waaw yaay leader bi. maanaam on on la fu. ondu waaw. Hmm. mooy leader bi. Hmm. mais te bu ñuy wax xam sa cosaan maanaam bu ñuy suqaliku ñu koy xam. waaw yow la mal la woon quoi. dëgg la te niñ ko doon niñ niñ doon préparé suñu combat niñ daan nekkee tout ça. Mhm. da dem xam nga làmb et puis. Mhm. man man am naa ci fautif. mais tamit ñi ñu dëkkal tamit am nañ ci fautif. Mhm. ñi nga xamante ne ay bonne volonté lañ. am am nañ ci fautif. parce que la mooy li ma wax ku ñemee dañ laa dégg. ñi nga xamante ne ñoo dëkk biir xam sa cosaan yàlla may leen kàttan. waaw ñoo war a génn jàppale booy yi. jàppale booy yi. ja jàppale ngeen amul. amuñu ko. Ah. boy, bu. Hmm. xam sa cosaan amul mbër mu leen mbër yi leen dàq bëree bëriwul. bëriwul ngeen amoon naari gétto. am set am lepu li am tout am lépp. Hmm. Hmm. lépp loo soxla woon laa ci mbër boo ñëwee biir xam sa cosaan. amoon na ay poids lourd ay poids. poids léger poids te ki nga ci ki nga ciy gën a xeeb. waaw kooku moo la gën a mën a rey. loolu comme ça. parce que non. loo gis lu nekk rek. Mm. dafa loo xamante ni moom mooy base bi mu war a nekk ci suuf di leen jàppale. Mm. surtout làmb moom moo ci raw. Mm-hmm. làmb bu grand làmb amul naxaatee. Ah. làmb bu mbër mu la ci ëpp jàppale. Mm-hmm. moo la gën a bokk ci làmb. loolu pour cent Pikine ngi si gis sa bopp. non man moom wax dëgg yàlla kii moom. waaw. Ah. ci. bokkoo si deux cent pour cent bi. ah lu loolu waa Pikine ñëpp la ngay war a ñëw bokkal bokkal sa bopp est-ce war nga xaar ñu woo la. No, pa xaar pour ñu woma wala wala wala wala wala wala wala ben affaire bi 200% cent pour mm. euh, man pour man mm. ni mo ko man hmm yi ñi dégg la rek hmm 200% pour ñi dégg la rek mm. mm-hmm. muy ñaan Eumeu Sène waaw Sokh mm-hmm. Boy Niang hmm Baldé ñoom mm-hmm. ñooy deux cent pour mais loolu lañ ko yaatal ku bëgg bokk ku bëgg a bokk ñëw ah. waaw non xam nga du affaire bi du ku bëgg bokk ñëw. Uh-huh. woo nañ ñëpp de. taxawu la affaire bi ah. du ay kii ak affaire yooyu de. Uh-huh. maanaam union boobu ñuy wax noonu. li ah. waral ñuy wax loolu. Mm. sincèrement parler. Mm-hmm. bu ñuy wax parcelle laa ko mm. pour cent parcelle la gën a dëgg. ma parcelle laa gis loolu quoi. Uh-huh. dëgg la. dëgg mooy dëgg. Mm-hmm. non fa ko gën a gis. Mm-hmm. léegi lan moo war a changé lan la 200 pour cent Pikine lan nan lan nga leen di digal pour mu dox. moom mooy euh, Pikine Pikine maanaam gis nga ñi nga xamante ne nii àdduna du neex mukk. Mhm. ba ñu laalante dañu bëree wala ñu def dara. Mhm. ñoo war di ànd. Mhm. ku nekk di ci gis sa bopp. ba pare ku nekk am yéene boobu ci sa morom. du ñu xàmmee ku tuuti gi du ñu xàmmee ku makki. ku tu ku makki li ñu koy defal. dañu war a defal ku tuuti gi pour mu yegg foofu noonu. xam nga li set di bokkandoo lépp mhm. di jàpp si lépp mhm. tey jii man ma nekk seen ma ma am koo xamante ni leer na ma ni ñoo xamante ni su leen booleeg ñoom sama rakk ji bii nii dañ ko jàppale mhm. ma boole ak ñoom ñu jàppale ko di àndandoo ci yu bari yu baree baree bari bari mbër yooyu nga lim yaa ngi a gisante ak ñoom ama booy ñaa soxu ëmb est-ce que gisante ñoom am nga ay contact ñoom non man ñoom ñëpp su may waaye waaw dëgg la ñoom ñëpp sumay waay la sa du ma wax waaw ëmb ëmb sama copain du sama grand de sama copain la sama gayan la woon quoi xam nga ñi si des suñu rakk lañu bu baax léegi yow la mooy sa taxawaay à Pikine non man sama taxawaay sama taxawaay à Pikine en tant que leader waaw man ci laa rek man moom maa ngi ci suuf waaw maa ngi ci suuf man ñun tey jii suñu suñu man sama taxawaay moom mooy jéem a xool nu ma def lu tuur ba jéem écrit xam sa cosaan. fu ñu ko doon dégg ñu déggaat ko fa. Hmm. loolu mooy sa objectif. waaw moom loolu sama objectif. noonu la nga si nar a ak ak ni nga bàyyi nga ne léegi liggéey bi mu nga gën a cent pour cent que làmb loolu nan la nar a nekkee. waaw xam nga liggéey bi tey jii bu ma demoon bu ma comme ni ma tey jii ni ma kiiwee ci liggéey bi nii. waaw daf may daf daf may daf dama am loolu sama bëgg-bëgg la. Hmm. man maa bëgg man maa bëgg xam sa cosaan dellu fu mu nekkoon. waaw. yaa ngi siy dox incha allah xam sa cosaan dina dellu fu mu nekkoon. yaa ngi siy dox waaw. Insyaallah. allah sa rôle lan la fay nekk suñu saison bi saison bi passé suñu saison bi passé saison bi ñu dina ko daax foofu dina ko daax incha ci kàttan yàlla yow yow ñu ngi lay contacter pour combat waaw ñu may contacter da ngay ñëwaat bon nañ ma xaar maa ñëw yan yan mbër mbër lañ lay waxal non grand bëri na bëri na bëri na man ci làmb laa bokk waaw ci nga man ci ci def lu Hmm. man di bëreeg boobu moo ma gënal téeméeri yoon di bëreeg. Hmm. yow gisee làmb léegi mu ngi dox. non làmb moom doxul moom. Hmm. ah. làmb doxul. làmb. tey jii saison bii di ñu génn sax. waaw xaw na tane tuuti. waaw xam nga li ma doy sax. parce que am na ñu nu commencé di boole ci biir ci biir làmb quoi. dëgg di boole. te boo yaa ngi gën a wane seen wane seen bopp. dëgg la promoteur bi. Hmm. ñoo war a delluwaat ci xale yi. waaw dañoo war a delluwaat ci xale yi parce que làmb ji foofu la nekk. Hmm. enjeu làmb ji foofu la nekk. Hmm. ba pare di leen fay. yéene booy yi quoi yéene booy yi. yéene bi ñu am ci mag ñi nañ ko nañ am yéene boobu noonu nañ ko am ci booy yi. booy yi tamit mën a am benn affaire boo xamante ne dañ koy taxawal tuuti. mais tey jii benn mbër boo xamante ne nii da koy bëraloo benn dangay gis benn koo combat. Hmm. yoo xamante ne nii mën nga ko mën nga leen fay ay cent millions. Hmm. quatre vingt quatre vingt millions quatre vingt dix hmm. millions. nga avant dernier combat bi. doo ko fay sax deux millions wala doo ko fay sax un million. yaa ngi imaginer. xam nga ci mbër moo xamante ne nii. boo xoolee li muy li muy li muy indi ci stade bi sax. soog moytuwul ñu mag ñi ngay ñi nga ñi nga tëggal loolu duñ ko indi ci stade bi benn. fukk bi ñu joxe ci biir làmb ji. Mm. maanaam animation bi ci bëre ci lépp tout li ñuy joxe sax. Mm-hmm. mag mi du ko joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. amoo yéene boobu ci ñoom. kon mëneen bi nañ ko jël tas ko ci booy ndax booy mën a suqali ko tuuti ñoom it xam nga. di di di commencé di duggaat ci yeneen. defaat yeneen. amaat yeneen business bu ko defee làmb ji. mën a suqali ko ñu ci nekk xaw di gis seen bopp partout tuuti même ko gisul ci làmb ji. seen beneen job boo xamante ni ñu ngi koy job moo xam éleveur la moo xam leneen la wala leneen. ñu ciy gis seen bopp partout tuuti. dëgg ñu dellu tuuti xam sa cosaan. sa seen leader xanaa dafa bàyyi bëre on le fou. non mais lu tax moom muy delloo avance booy yi rek. kàlla delloo avance. mais bëri na. waaw champion la nag. mais moom dafa bokk victoire Ada Fass bi rek ne maa daan Ada Fass nangootul bëre tamit. Ah, mais wax na dëgg Ada Fass. waaw moo daan fi ñetti combat. boo xoolee suñu combat. Mhm. suñu combat man sama classe bi. waaw loolu moom moo ñu gën a tardé ci làmb. Ah. parce que ñun chaque jour rek dafa am foo xamante ni fa la ñuy teg te dañ koy dépassé. Mhm. dañuy dépassé foofu. waaw nañ ko jox ci mbëri. moo daan Ada Fass. waaw kon war na mën a am yenn. Ada Fass dem bay bëreeg Zarko moom dem bay bëreeg Zarko. waaw ci diggante bi ñaata combat ci Ada am. ñaata ah. kan ak kan lañ ko ci jox. Hmm. mais dañoo xool dañ ko dañ ko teglee jox ko dafa am ñoo xam ne moom la ñu xool ci kaw jox ko. Hmm. mais pourquoi pas fii moo tax làmb dafa xaw a doy waar. kon naka bëgg wax Ada dañ ko xàllal. après no pas xalal. dañ ko jox ay adversaires yoo xamante ni maanaam jógewul ci jógewul ci daanu. waaw ñu leen jox ko yaawu jaar. xam nga li ma lay sax. dafa daanu. moom Ada Fass mënul daanu. Mm-hmm. dem bëri ji ak kan kii lu sax euh, booy bi euh, kii ndëkk fii. tour bi dinañ non eh, eh, ki dango, bi dëkk parcelle daan ko dango, ko waaw xam nga jóge foofu bëre kii daan ko mu ond mi ko bë mi mu bëraloon waaw ba léegi ñu koy joxaat yeneen non non nañ ko jox ñu gën a kawe ñooñu moom tamit moom tamit mu ñëw bu jéem a jéem muy avancé gën a mais est-ce du tardel tamit soq kii eh, ond di xaar di xaar di xaar non da tardel sama classe gi nag loolu lañ doon bañ tardement hmm. boobu nga doon bañ moo tax parfois ngay dellu ginnaaw di bëri ñoo xamante ne nii waroo bëri ñoom doo bëri ba pare hmm. boru moon bëri si ta ma bëri caat ba pare. bu ma amoon lu ma gën a du Siteu laay bëreel Sa Thiès laay bëreel wala Zarko. da nga rawoon Siteu. non sama combat yooyu la woon. Hmm. Sa Thiès la woon. Sa Thiès la woon wala Zarko. parce que boobu dafa fekk Sa Thiès ak Zarko doon bëree. Hmm. man ma bëree kii daan ko. Hmm. ñoom ñaar ñu bëree. Zarko kii Sa Thiès daan Zarko. foofu laa waroon bëree. foofu nga waroon bëree. mais après xool fi ñu ma delloo waat. kon yow jàpp da nga jàpp war a woon bëri Siteu non non war moon instant boobu du moom laa waroon bëri man mu moo nañoo bëri ci kanam ci kanam mais instant boobu du moom laa waroon hmm. sama bët waroon naa gën a mën a kawe foofu far far Siteu yàqal la yoon boobu waaw mi ngi noonu yàq yàq yàq yàq yoon boobu te man boo xoolee li gën a tax mu demee nii sax loolu ci la bokk ci la sa combat ak Siteu oui ak moom ab ah, bi ma jógee foofu. Hmm. bi ma bi ma jógee ci Siteu. Hmm. dama am combat bëre daan amaat combat bëre daan hmm. après yow boo xoolee ñi ngay bëreel chaque jour. ñi nekk ñi nga war a bëreel carrément doo bëreel ñoom. doo bëreel ñoom dëgg la. te mënoo ñëw rek après nga toog noonu sans autant nga mbër mbër nga bëgg nekk ba pare nga toog doo doo bëreel. doo bëreel chaque jour même fi nga nekk rek fa ngay nekk. avancé woo puusoo ah, paasoo puusoo paasoo. loolu day tardeel nit li ñu gën a tardeel ñun ci làmb loolu ci la bokk mais ñun man damaa bokkoon ci làmb. dama ci bokkoon. xam nga mais maanaam jàpp bi nga war a am jàppale bi nga war a am te ñun mm. man boobu amuñu jàppale bu fekkoon yaa ngi benn jàppale yaa yenn soutien yi sax mm-hmm. après mën nga toog ngay xaar sax par tuuti mm-hmm. mm-hmm. xam nga mais ñàkkoon ko moo tax mënoo mënoo toog di xaar foog ngay bëre foog ngay bëre parce da nga am da nga am da am kër da nga mm. am ay jàq da nga am mag da nga am papa ñëpp yaakaar si yow ñëpp yaakaar xam nga uh-huh. tamit foog nga am yoo xamante ne da nga koy def da nga koy def noonu la demee noonu la waa Pikine jëm si saison bu mag de sa copain booy ñaar di war a di bëre ak Balla Gaye da si da nga si da nga si taqrib waaw waaw loolu dañ ciy tax rek parce man comme ni ma koy waxee waaw man Pikine laa am. Mhm. ñun ay Pikine waa lañ. Mhm. xam nga dañuy ñaan booy yàlla may ko ndam. Mhm. waaw. Ah, ngay jàpp ci combat boobu. yëg wax nañ la ko wala. non man du du jàppale bi xam nga moom mooy lan. di ko ñaanal yàlla yàlla may man loolu yooyu laa am. man lu ñu ma ci dem. waaw. lu ma waaye woo ma ma takk ci ba ma ma takk ci ripp ci yeneen écrit bu dul xam sa cosaan hmm. xam sa cosaan lépp lu ma du ma xaar pour woo ma mais hmm. beneen bu dul moom hmm. ma wooyee ma ñëw ma woo nga ñëw après Ama Baldé Gris Bordeaux Ama Baldé Gris loolu combat bu mag a mag la ah. waaw loolu bu mag a mag amoo si tiitaange yéen waa waaw xam nga tey jii comme li may wax chaque jour rek ah. gis nga nit boo ko bëggee da koy wax dëgg da koy wax dëgg waaw kan nga bëgg wax dëgg noonu ma ne nit boo ko bëggee da nga koy wax dëgg ak ku mu mën a doon. dëgg bi mooy lan. moom mooy euh, maanaam boo nekkee ci am na yenn combat yoo xamante ne. boo ko amee. Mm. li nga ci war a def yëpp def ko. surtout mm. Mm. ba pare nga xool say adversaire bu baax a baax a baax a baax. Gris Bordeaux du baax du paax. Gris am combat. Ah. daa juum. non juumul de. dama bëgg mu xam ne dafa am combat. dafa am combat bu mu xeeb combat fa laay waxee. Euh, Gris du paa. du paa. Hmm. déedéet Gris boo xoolee combat ba Balla Gaye nga xam ne du paa. Hmm. te champion la. te waa Pikine nañu jàppee Gris paa. non te ñu bëri tey jii non la paa tey jii xam nga dañ naan la non kooku hmm. lii kooku laa la xam nga. Ah. nga jël sa boo bopp def ko foofu ba. waaw ah. ah, mooy loolu. ba penalty fekk la si. ba penalty fekk la si te Gris Bordeaux champion la. Sa Thiès Reug Reug Sa Thiès la gën waaw man tey jii combat boobu moom bu may wax damay wax ci damay wax damay wax noonu man du ma joxee cinquante cinquante quoi. Hmm. waaw lu tax. waaw su ma joxee favori. Hmm. su ma joxee favori. Hmm. Sa Thiès laa jox favori. Sa Thiès ngay jox favori si làmb nga ko teg. ci làmb laa ko teg. waaw làmb. Sa Thiès laa jox favori. si naka. non dama xam ni. ñi rëgg mu bëree ñëpp. Hmm. da leen a dàq bëri. waaw fuuf fuuf gën leen nekk daf leen gën a nekk xale. Hmm. dàq leen a bëri. Hmm. ba pare kàttanam néewul ci ñoom. xam nga mais Sa Thiès Reug gënu ko nekk xale. bu dee kàttan la du ko ëpp. bu dee bëri la dàq ko. loolu am na Matar ba dem àndoon nga Matar Ba ministre des sports. waaw Yankhoba Diattara remplacé ko àndoon nga si. non man moom wax dëgg yàlla moom Sénégal ànduma ci dara. Matar Ba li dem baax ni ñuy doxee nii kan si. Matar Ba li ñu ko remplacé ministre des sports andi Yankhoba Diattara. gis nga gis nga dañoo toll foo xamante ne garaan. Hmm. gis nga àdduna moo mel noonu. am na temps boo xamante ne boo ko defee. xajalal sa keneen mu ñëw démb am beneen kii. mais ngalla kii ñëw. bu mu nekk politique moo koy indi. mais na ko xam-xam indi. Sénégal foofu la war a toll. dafa war a toll foo xamante ni amatul ab ñoo bokk parti amul ñu parti amul danga may jàppale amul jàppale woo ma. Mm-hmm. xam-xam da koy am. ñu mm-hmm. teg la amoo xam-xam. ñu mm-hmm. keneen ku am xam-xam. foofu la toll. nañ jël borom xam la waaw. ñu terminé tey boo doon may sens ban booy nga bëggoon gën a bëgg tey sa yaram laaj. pour may ko sens. Ah. promoteur gaaw ko dox mu gaaw ko sotti. sama copain ta nga ngemb bi tooy. koo yaay bëre man dugg ba si géew bi de. non man pare naa pour ñëpp. pare nga pour ñëpp. ah nga pour ñëpp. yow daal sa objectif mooy delloowaat xam si cosaan fu mu nekkoon. waaw wooyuwaat ñoom Jordan. non ñoom ond ñoom sox. ñoom ñëpp. foofu la sama foofu la foofu la. foofu dajalewaat boobu yëpp gaa yëpp ñëw. Mhm. Malick Gningue yéen am nouvelle def ko Malick Gningue waaw. waaw ah, mooy président ba léegi. mooy président waaw ah, mooy président dama yaakaar da koy génnee si kii wala. <laughs> mooy président mooy sama copain. <laughs> mooy borom xam sa cosaan. ah mooy la eh. mais kontaan naa la ngay tàggatoo. waaw gannaaw di di la bu baax a baax. merci merci bu baax a baax. te yow képp koo xamante ni mi ngi ci biir làmb di ñaanal yàlla waa làmb yëpp suñu borom defal leen jàmm sàmm leen te aar leen te di ko ñaanal mbër yëpp di wax promoteur yi rek ñu gën a bàyyi waat seen xel ci ci booy yi ci booy yi parce que tamit booy yi war nañoo mën a kii quoi parce que ñu bëri dañoo bàyyi dañ cee bàyyi lu bari mu bàyyi seen liggéey yi bàyyi seen métier jël lépp def ko ci biir làmb teg ko seen teg ko ci biir làmb kon war nañ leen ci boole di leen cofal loo xamante ni nii. tey jii ñoom bu ñu génnee ci combat bi sax dinañ mën a am benn affaire bu ñu investi mais génn ci combat. ak loxo neen ba pare di fay bor. Hmm. loolu loolu dafa metti ñun ñi ñëpp boo xoolee li ñu gën a tardeel ci làmb loolu ci la bokk. Hmm. ah hmm. di ñaanal ñëpp. di ñaanal suma suma suma imaam. Ah. Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla jéggal ko yërëm ko te xare ko àjjana yi fi mu si. imaam ban imaam ban ndaw. ndeysaan maa ngi ñaanal yàlla suñu borom yal na ko yàlla. xare àjjana yi firdawsi lépp loo xamante ni nii amoon na ko bëgg-bëgg mm. ak namm-namm ci Sénégal mm. yal na ko suñu borom mottalil ci njabootam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanal tamit euh, mu sell bi mm. yàlla defal ko jàmm moom sàmm ko aar lépp loo xamante ne nii bëgg na ko ci biir réew mi moom defal ko ko ci barki yonent bi waaw di nuyu waa ginnaaw raay yëpp di nuyu gàddaay bi ma jógee di nuyu waa Ndar. Mhm. di nuyu ñëpp di waa bu baax a baax a baax a baax. yaay ñeenti continent yi daal. waaw waaw ah, yaa mbëru ñeenti <laughs> na ay ah. Mauritanie ay Waalo ay. Ah, ay man man fépp laa bokk ci Sénégal. la. Jolof tout lépp fépp laa bokk ci Sénégal. mu weer. soriwul dara bu baax a baax. Hermine. di salué à madame ak ñëpp ah. ñaari galon non ah, benn galon <laughs> jërëjëf donc ki ma nekkoon ah, naaru kii na sogas naaru sogas ñu seet si woon ko tey vraiment am contentement di wax promoteur yi nag ki mbëru amateur yi amateur yee ko soxla nañ ko gestu jox ko combat mu ñëw bëre jox ko moromam nag parce que li mu def si làmb palmarès am kenn du ko bu demoon ba bu demee ba may sensibiliser ça di dire am na niveau bu mu tolloon donc ku mel nii tey waruñu ko bàyyi noonu du am combat mu ngi gàddaay nekk foofu di entraîné bëgg yëkkati yëkkatiwaat xam si cosaan ñoom Jordan ñëw ñoom Jet Li ñëw ñoom ñoom euh, soq ñëw Onde le ñëw booy yëpp ñëw xam nga même sama booy naaru gétoo ah, dafa war a war a ñëwaat jeune bi ah sama booy ngeen faj jeune ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay champion ay ay moo moo waaw ko kenn la na ko fay waaw kenn la xolam xolam xolam waaw kenn la waaw c'est le grand coach waaw ngëm vraiment chaque jour coach la coach waaw toujours présent. toujours toujours présent du bàyyi woo téléphone. dëgg la fajar da ngay am combat fajar moo lay jëkk géej. ndeysaan woo la téléphone. ne maa ngi bàyyi njabootam bàyyi léppam. waaw ah, loolu moom dañ koy ñaanal yàlla. waay la vraiment. ay vieux Touré ñoom ñëpp ah. dëgg waaye hmm. leen di char bu baax a baax di naaru kontaan bu ñu dajee waate nañ daje arène nationale. amul benn problème ngay ngay def face à face yow sa adversaire. fekk fekk mu a tooyal naaru merci jërëjëf kontaan naa merci とい